ña fa nekk di ay kilifa yépp ku ne di ko tàllal loxo ni ko kaay nga dal ak man ba ci meeru Médine waaye benn baat nag jaaxal leen te mooy daawu سبيل الناقة فإنها مأمورة waaw meeru Médine bi dafa dof ni mësuma gis mukk ko am stratégie comme kii ndax ñëw ci dëkk bu mel ni ku ne di la ñaan nga dal ak moom nga ni nañu bàyyi gëléem gi gëléem gi moo xam fi ma war a wàcc mu ni choix bu gëléem def nu ko nit di dingate waaye fekk na yàlla mooy yëg ni yonent bi du man dal ci këru kenn ndax li mu yor ci bagage xajul ci këru kenn waaye bu may wax bagage nag waxuma ay valise waxuma ay saak bagage yi nubuwaam moo xajul ci këru kenn kon mu am pàkku boppam la mu fay def mu def ko fa wala mu jël pàkku jaamur bés mën na ñëw mu ñëw ni ko jox ma sama pàkk wala mu xëccook moom moo tax yàlla def wax yu ci gëléem gi pour gëléem gi moom xam na pàkk boo xam ni kenn du ko xëccoog yonent bi gëléem bi dem ba foofa góor ci suuf mu xam ni foofu la yàlla wax pour mu wàcc fa mu jënd bàkk ba def fa këram def fa jàkkaam ay soxnaam dëkk ak moom waaye terewul ñi dëkk Màkka danañ yónnee ay ndaw pour ñu dem Madina pour influencer leen pour ñu fexe ba génne yonent bi foofa mënatul woon nekk ndax am na fa terrain boppam ba noppi terrain boo xam ni cadastre joxu ko ko waaw jënd ko waaw wa ah mu lew ko doom waaye teewul cokkaas yi di bare façon bu nekk def nañ ko ko pour jëm ko décourager ba at mi mu décider ànd ak jullit yi pour ñu dem aji mag ñu dem ba foofa waa Màkka ni leen du ngeen fi dugg am na ci ay njabootam sax yu commencé woon di bëgg a fippu ndax ni ko bàyyi rekk ñu defanteeg ñoom yàlla wax ak moom ni ko jaru ko dellu leen Medina aj du wees di des ci seen dund yépp man ngeen ci at te bisa ngi ci ëllëg di nga jóg ànd ak ñi ngay àndal ngeen ñëw màkk bu keroogee ku ngeen yaatalul du fa yaatu waaw waaye keroog bi fatxu makka amee yonent bi ànd ak ñi mu àndal jëm si makka ñoom bi ñu gisee force bi mu àndal kenn desut dëkk bu ñu romb ñoo ña fàq ak waa këram ba bi ñuy yegg si màkk ñoom dañu defoon ni dañuy jël seen bakkan kenn ku ci ne daw di wut foo làqu ci yonent bi ñëw dugg yeneen bi daaneel leen benn par benn mais li tax mu gën a gëm jëfandiku yàlla ci moom moo di sunu borom ni ko waxuma la man ndax law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyati llah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنه هو الله الذي لا إله إلا هو والسعادة وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام baatu salaam boobu rekk te la soog a déggee pourquoi ñu naan ko assalaamu aleyka ayyuha nabi ko xanaa seetluwuloo ni julli suba mu ngi lay nuyu julli tisbaar mu ngi lay nuyu julli takkusaan mu ngi lay nuyu julli timis mu ngi lay nuyu julli gee mu ngi lay nuyu chaque jour buñ ko multiplier ci ñi yàlla am ci kaw suuf waxtu yooyu yépp ñu naan la assalaamu alayka ayyuha nabi wa wa barakaatu ku la tëkkooti nga tiit rek kon xamoo koo amal affaire waaw loolu moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa dina dem ba yëg ni li mu ci foog yemul ci nit ñi kese-kese dem na ba yëg ni guddi balaa muuru wax asalaamu aleyk bëccëg balaa mu réeku wax assalaamu aleyk ëmb bu jigéen di ëmb moo xam la mu ëmb góor la walla la mu ëmb jigéen la ëmb ga bu ca seytaane amul yoon ba noppi ma ngay wax assalaamu aleyka ayyuha nabi waaye nag bu ca seytaane xase ba am yoon nag ñoom ñu teggi seen responsabilité waaw looloo taxoon Seydatna Mariam la Vierge Marie a ah, ci waa yu baax ya ba ñu yeggee ci seen ëmb te ragal seytaane dugg ca moo waral waxinam boobu rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fa taqabbal minni innaka samiu alalim waaw innaka anta samiu alalim waaw فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى الله صح أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم waaye wa inni uiduha bika wa durriyataha min alcheytaani arrajim ñoom xam nañ ni lu cheytaane xas ba dugg lu ko protéger du yombati moom la ma dégg góor gi yaakaar naa wax naa leen ko ci waxtaan yu jiitu mu ni dafay faral di ragal xale yi léegi façon bi ñuy solo def ci xaw ragal ñu ni ko lu tax mu ni dafa bari lu ñuy bàyyi seen jumbux ci biti mu ni te boo bàyyee sa jumbux ci biti ba seytaane jël baaraamam bi dugal ko ci biir ba dootul jur lu baax te xale yépp noonu lañuy ñuy solo waaye ci boo amul kilifa waaw boo amee kilifa ah yàlla mën na la defal sutura yàlla bu mu fekk nag nga am kilifa bu la yar yarin bu feeñ ci sa lépp waaw feeñ ci sa jikko feeñ ci sa dundin feeñ ci sa col feeñ ci sa yëpp waaw boobu chance bi ci la ëppee loolu moo tax ëmb yi naam médecin yi am nañ ci solo waaw gynécologue yi am nañ ci solo ku ci ne ak xam-xamam ak mëninam ëpp naa xeeb waaye itam ah dénk sa bopp yàlla itam gisuma lu ko ci ëpp doole waaw waaye day fekk ki nga ci dénk sa bopp mu xam lu xew ndax jigéen bu ëmbee du fu mu toll ci weeram rek nga sañ jàng aaya bu ne ndax am na ci aaya yu nga xam ni boo ko ko jàngalee mu jël ko mu avorté ci saasi ndax aaya yu mel noonu fekk jigéen yeggul ci juróom-ñeenti weer waruloo ko ko jàngal waaw mais foog nga xam ko waaw dafa am ñoo xam ne bu ñu nit ñëwee rek ñaanal ma sama doom dafa lii walla moom ci boppam mu ni ñaanal ma dama ëmb ñu jàngalu na rek jox ko te du ñu xam ndax war na ko jël ci boobu waxtu walla déet waaw فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين xoolal loolu te koo jox aaya bi fekk mu ëmb te fekkul mu am juróom-ñeenti weer mu aborte waaw moo tax lu ci nekk rekk xam lan la jaar ko ci mag ñi jaar ko ci yonent bi di yàlla di ci def sutura waaw ëpp na di xeeb waaw mu mel ni kon nag waaw ci biir nuyoo yooyu ñuy nuyu yonent bi li ci gën a yéeme mooy am na waxtu yu yàlla tudd te la gën a yéeme ca circonstance ba mooy boole gañ koy booleeg nuyu ga ñuy nuyu yonent bi baatu ida shamsu ko wirat wa ida nujumun kadarat wa ida aljibalu suyirat xoolal lool wa ida alisharu utilat wa ida alwuxushu xushira wa idal bihaaru sujjirat yooyu yàlla di lim ñu naan c'est la fin des temps yàlla di wax ni jant bi bés bañ koy déconnecté ci énergie yi koy doxloo ñu koy déconnecté ba dootul joxe penku dootul joxe soow nee na bala ca yegg nuyu yonent bi ba noppi ndax déconnexion boobu bu ci salaam bi bi ñuy jox yeneenti bi àndul bul xam luy xew waaw fin ba mën na nekk lu trajik waaw moo tax jant bi di nuyu yonent bi ndax lu tax dafa bari lu mu nuróole ak yonent bi moom jant ndax bari na fu ñu taggee yonent bi lañ ko tagge waaw fa innahu chamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaaraha linnaasi fi fi zulami xoolal loolu yonent bi mooy jant kon mën nañu jàpp ni yeneen yonent yi ñooy planète yi waaw waaye wa isal nujumun kadarat xoolal loolu tawee bés bu ñu demee ba planète yi ñu di leen désin désinstallé ni ko yàlla defe woon ba mu nekk ci ordre yàlla joxe ordre pour ñu désinstaller planète yépp te ñoom it bala ñu leen di désinstaller foog ñu nuyu yonent bi ba noppi ndax ñaan mu mujj bañ a jor jur lor wa idal jibaalu suyirat waxtu wa ñuy déboulonner déboulonner montagne yi pour sempi fa ñu nekk ñu minute pour fin bi bañ a nekk lu tragique moo tax ñuy nuyu yonent bi ndax salaam boobu àndak ñoom waaw fa ñuy demee ba déterrer rab yeeg lépp lu dundoon te yàlla wax ni nañu la déterré ah bu boobaa ñoom itam pour mu bañ a nekk lu tragique ñu nuyu yonent bi ndax nuyoo ba mën a tax mu jur jàmm ci ñoom fa ñuy deme ba vide géej gi waaw ah. muy bi xaaru su jirat comme ni ngay amee sa piscine ci sa kër nga dem ba pisin ba am poussière walla mu taq nga ne nañu vider piscine bi ba mu jeex nettoyer ko moment boobu ñu ko nettoyé te kenn duyaatu ko ndox yàlla nee na dangeen dem ji ba géej yi ñu vidé leen ba ñoom ndox dootuñu ko dese xoolal loolu waaye balaa loolu di am pour bañ mu nekk fin bu tragique ñoomi it dinañu nuyu yonent bi ndax bëgg ci jàmm leen waaw bi ci des itam bu ñu demee ba mbindeef ak mbindeef kenn ku ci nekk ñu mënoo la ak sa morom nga xam ni doo mën a dem bàyyi ko waaye moom it du mën a dem bàyyi la foofa it kenn ku nekk bu fekkee ni sa xel mu ngi ci yow di nga nuyu yenent bi Muhammad ndax bëgg nuyoo bi jural la jàmm wa ida almawudatu suilat bi ayi dambin qutilat waaw arab yi dañu daan def ku ci sa soxna accouché boo laajtee doom bi lan la ñun la doom bu jigéen la nga ni dañ ko suul waaw ndax nag wax ni jigéen def dul amal kenn njariñ mu ne ah, xanaa ca seen booba jamono la waaye bii jamono dafa mel ni jigéen ñi ñoo yore lépp waaw moo tax ñu daan lu seen doom yu jigéen ñi ba ca biir pax ma fa la ñuy faatu yàlla nag nee na ci bis boobu dana laaj ñi doon suul yu jigéen yooyule ban bàkkaar la doom bi def ba ñu teg ko lu toll noonu waaye ku ñuy laaj ban bàkkaar la doom bi def ba nga teg ko lu toll noonu moo lay xamal ni it fekk ku ñu suul ba noppi nga déterré ko yàlla dina laaj bi ay yi bi lan la def ba nga déterré ko di ko wax yàlla looloo taxoon fii nii bi ñu ñëwee fekk ñu denc kàccib Touré fii ñoo tëral la ñu tëral waaw jël koor ba yóbbu man le lendemain lañ ma soog a saisir ñi ma kooru kaatim yóbbu nañ ko waaye waxuma ca waaye fekk na nit ku nekk ak wërsëgam biñ ko jëlee yóbbu ko benn mag daf ma yónnee ndaw ni ma bis bu kaatim dellusee ñu war ko dugalaat ci pax nañ ko jàngal allahumma ya man azhar al jamil juróom-ñaar fukki yoon tëflil ko ko ci biir pax bi mu soog fa dugg xoolal lool ndeke wërsëg boobu la doon xaar ah mu ñëw barki démb jaajuma ci ñuy def xadaratul juma ma ni nañ ma wool juróom ñaari nit yu sell rek te wool ma imam Samba jóg ñu ñëw ma ni dem leen ngeen xottiwaat beneen perkal ndax perkal bu jëkk ba jëmmi awti awtee gi ñu koy awti awtee glace yi ñu ko doon tëral pour ñu teral ko nañ ko jëndal beneen percal bu bees ñu lëmas ko ci soo ko dugal ci bàmmeel waaw ñu defal ko noonu mais loolu nekkul woon li ma jaaxal en même temps que ñuy yónnee pour defar ko dugalaat ko Cheikh mi ni ma Aziz Touré ak Daba Touré ñaari doom yi rek la katimaam ni ma ñooma yóbbante woon ma ni ko lu ñu wax mu ni ma nee nañu bu xew-xew yi daan am gàmmook leneen seen papa daf leen daan jox dog ci jawharatul kamaan xoolal loolu te ay junney junni ñu di ay xaleel seen papa di leen ko jàngaloo ni leen pour ngeen jàngal ko Serigne Moustapha ndax événement bi ñu yónni cheikh nag ni ko ndax am nañu ndigal continuer ko wala déet xoolal lool doomam bu góor bi Abdou Aziz man maa ko yar ca daara ja waaye cheikh day ñëw léeg-léeg dafay ree sax ma ko nee lan la mu ni ma xanaa Aziz Touré ma ni ko ah mu ma bi ma paree bay dem def ni ma Cheikh ma ni ko la mu ni ma boo demee ni Sëriñ Moustapha ma ni ko ah mu ma yàlla na ko yàlla làq fa yàlla làq boppam <laughs> ko ñaanu xale la de waaye kenn xamul loolu ba fan waaw ndeysaan waaye fekk ne ku nekk ak la nga donn ak la nga nàmp waaw loolu la donn ci seen papa loolu it la nàmp ci seen papa bu ko defee kon nag bu fekkee ni yàlla dafa wax ci alquran hal ataa ala al insani xiinun min addahr lam yaku shay'an madkura te sëriñ Cheikh wax ni hël bi du hëlu istifham yàlla interrogé dafay confirmer maanaam hal ata ala al insan yaani qad ata ala al min addaara yàlla nee na kañ lañu ñu commencé di tudd nit ci gannaaw tuuti rek kenn doonul xam ndax nit dana am walla déet waaye itam toog nañu jamono itam bi nit amee ba noppi ñu yëg ni sunu boroom lépp lu nga xam ni àdduna bi war na ko terloo nañu ko natt ci salaatu bu ñuy def ci yonent bi ak salaam bañ koy boole ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci li daan gën a jaaxal yéefar yi mooy lu tax ngay wax assalaamu alayka ayyuha nabi te moom miñ koy wax moom it muy wax assalaamu alayka ayyuha nabi moo xamal ni jëmmam li mu représenté bokkul ak li nubuwaam représenté kon nag bu ñeneen dee nuyu jëmmam moom yonent bi ne nuyu boppam lu ni tollu delloo ko ci nubuwaam waaw loolu tax jàngee alquran boobu mu daan nuyu boppam moom yonent bi leneen la symboliser lu dul jëmmam kese kese looloo tax buñ ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun boobu bokkul ak as-subuhaatul ilaahiya yi ñu tudd mais wasalaamun ala almursalin yonent bi wéttal rek moo ko ca yóbbu waaw wéttali yonent moo tax mu duggaale ci salaamun ala almursalin waaye fekk na mu séddu ba noppi d'accord kon ok ah, nee nañu problème mu moo ci posé wu moo tax kon yonent bi sallallahu alayhi wa lépp luñ ko boole ak yonent yi def ca dugg rekk ndax wéttal waaye fekk nag mu sëdd sëddu ci boppam ba noppi ba séddaale ku mu mën a sédd loolooy tax boo seetloo ci biir alquran ñoom yonent yi kenn ku ci nekk alquraanu yonent bi moo tax nga xam ni la yàlla sédd lan la aaya yi bari na ci baatu salaam yi ñu tudd salaamun ala nuuxin fi laalamin inna kadalika najzi almuxsinin salaamun ala ibrahim fi laalamin inna kadalika najzi almuxsinin salaamun ala muusa wa haaruun inna kadalika najzi lmuxsinin salaamun ala ali yasin inna kadalika najzi lmuxsinin lu bokkul ak wa salaamun alayhi ca yaxya yowma wulida wa yowma yamuut wa yowma yubcatu xayan bokkul ak bu isa bnu mariam wa salaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yawma yub'athu hayyan xeeti salaam yooyu yépp waaw ba ci waa aslamtu maa suleymaan lillahi rabbil alamin waaw yooyu yëpp benn bu ci nekk ci barke yonent bi moo tax seen borom jot ci waaw te alquran it moo leen may ñu annoncé ko bu dul woon yonenti ak ñëwam duñ ci jot waaw moo mel ni kon nag ndeysaan yonent bi yàlla dafa am lu mu ko gëmloo mu di ku dund di am ndey ak baay mën na am dinga am ay freer ak ay sœur mën na amit it nga am ay baay yu ndaw ak ay nijaay mais yàlla dafa bëggul woon ci niveau moom yonent bi mu aj boppam ci yooyu ndax bu ajee boppam ci yooyu bëgg ku nekk mu sédd la te nubuwa kenn du ko séddale mën nga séddale say mbubb mën nga séddale sa dàll mën nga séddale sa xaalis lu ne mën nga ko séddale mais am na cër yoo xam ne kenn du ko séddu nubuwa ca la bokk wilaaya yi itam ca la bokk waaw lu mel noonu moo doon sonal tubaab yi ndax dañu defoo woon ni Seydil Hadj Malick ak li ko yàlla sedd ci cadre wilaya dafa war a nekk lu mu war a partagé façon biñ ko xalaati ci Maodo it biñ ko xalaati ci Serigne Babacar moo li ci Maodo doon toléré kes néew fekk ci sëriñ Babacar ndax lam leen doon wax ni bu ma Maodo jurul woon it ma doon li ma doon ce qui veut dire que dafa am loo xam ne nit ki moo koy liggéeyal boppam way jur du la ko may waaw gis nga Seydina Cheikh bi mu gisee sama intérêt man lay soog a daw jëm si ci man il faut dire la vérité ñi xam kër gi te xam lu xew li ma wax xam nañ ko ndax dem naa bay am fanweeri ak presque di soog a commencé di toog ak moom nii booba maa nga ca daara ja waaw moo tax bés am na kàddu yu ñu waxante mag moom fekk moo am nu mu bëggoon ma doxale ko ma ko nag du man nekk ma ko bul fàtte ni man dong nga bàyyi woon foofa waaw mani ko ma boole di sauver ak di sauvegarder waaw ñi ci des ñépp doxi nañu seen soxla moo xam ni li ma ko bëggoon a wax moo di comme bàyyi nga ma fa may sauver di sauvegarder ba la ma ca jële ma jële ko fa di ko séddoote keneen du man nekk waaw waaye mu mujj ko nangu fekk boobu jigéen ji moo ko yónnee lettre te xam nga jigéen ñi kay ma wax la ñaar dañu ciy dof seen taaw ak seen cat duñ leen gëmee waaw ñu bëgg nag yow li nga sonn nga séddoo koog taaw séddoo koog cat te du lu ñuy séddoo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it pour mu gëm lu mel noonu moo tax yoon yàlla wàcc tabbat yada abi lahabin wa tab maa agna anhu maaluhu wa ma kasab pour mu gëm ni nit lu mu bokk bokk ak sa bi nga nekk bu ci adhéré wul bul na loo taxoon ba mu jaaxle ba daw Taïf pour seeti nijaayam ya nekk foofu yàlla def nijaay ya jal ko ay xaj sànni ko ay xeer ba damm bëjum mu ne ah fii de fa ma jógee ko tane mais fekk boobu yàlla ci boppam rek moo bëgg mu won ko ni ko moom rek moo ko amal njariñ moo tax ba mu rëccee ba dugg ca tool ba mu dugg te benn chrétien fekk ko fa di ko fompal deret ji ndax xaañ yiñ ko xaañ di dagg ay raisin di ko ko may muy lekk tuuti tuuti ba mu xaw a dallu tuuti dafa yëkkati boppam ndax xool kaw asamaan ni sunu boroom tey nag dinga ma wax koo may bàyyeel ndax ñaar rekk ñoo fi nekk wujj wu xoolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex léegi nag kan nga ma ci bàyyeel mais lu mën a xew yow lu mu mën a doon mu wàcc ci sama kaw bu ko sa mer lalu rek baax na pour man fa in lam ale laka gadabun alayya fala ubali walakin aafiyataka hiya awsau li xaj naa ci sa biir yërmande waaw pour wax la kenn ku ci nekk ci sa début di nga dem bëgg a sedd ku ne mais di nga dem ba ci biir nga xam ni benn partenaire nga am mooy sunu borom et puis nga jël sa bopp wékk ko ci moom waaw dinañ dem ba defe ne da dof lu ne di nga ko dégg waaw man dégg naa lu ne la tamay dugg prison waaw l'enfant terrible de Tivaouane lañ ma daan wooye waaye ma xam ni bés dana ñëw ñu fàtte tur bi waaw waaw tey jii nag l'enfant terrible de Tivaouane moo toog ci seen kanam waaw di leen wax lu leen bàyyi dul wax di leen wax lu nijaay leen nijaay dul wax mais il fallait ñu ñu muñ ko ba yàlla indi li muy indi waaw bu ko defee kon nag ah mu ngee guddi am na ñu miin fanaan guddik lëmm du leen wàññi dara mais am na ñu nga xam ni deux heures de temps rek lañ la mën a may bu ko weesoo li ngay wax duñ ci déggati lu bare waaw waaw ko defee ñu mel noonu rek ngay séddale moo tax ñoo xaaju waxtaan wi ñaari xaaj beneen xaaj bi suba incha allah ñu mottalil leen ko jox leen beneen benn xaaj bi waaw et bu ko defee kon nag ma ñaan oustaz Cheikh ñoom ñi doon enregistré ñi fi ñëw di enregistré itam ñi fi def seen loxo mu tudd leen bu pare ñu joxe ñaan ñu ñaan libéré nit ñi ñu dem récupérer ba suba ñu soog a dugg ci ñaareelu xaaj bi incha allah waaw oustaz